هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أين ثمد وباقي سبحانه سوك نف وواقي ننتنت تيف دليس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن الدنيا waxe kàddu lal wal ku nekk wey na te seetlu xalqi ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu na wa ma muhammadun illa rasul xalxala lin mu doon dunya surul kalak tamoo di yaale xayrul wara waa makka dun ko jaale waaye yàlla yóbbu ahmadul makki yoo dellu si yóbbu ahmadul mbakki lu bàyyi sunu maam Ceerno Ibrahima kële di xaadim ci lay maxduma yaari xew wi ko yetteel fa daarul mu fi xew wi ab ki ala seydi Ibrahima ma jooy le suuf ibran awaatab iima ab ki ala xaliil Ibrahima ma dellu jooyli asamaw xaddiima janta ngi jooy maam Cerno Ibrahima weera ngi jooy laylan ba daa bayiima ca moomaat sunu weeru kor wa jooy naa naa xinawul ma jooy si saa ndaama la sañcan daaru ca alsasin cay maa ka warootina waaru garaw gawan daaw jommetina mi mbiroy ne leen waaw ay malaxaali xalilullaahi way jooy la leen masaana jaay lillaahi ay na laa fardi xalilillaahi maam ceerno ibrahima baabullaahi ayn ala xutbul wara sin jaa'i xalifatil xadimi duunallaahi xayn ala xarmi rijaalillahi seyxi siyuuxi xaa'idil ilaahi way ma ne way mal mi ko ñaanal wirdu def ko sëriñ fu muy jëlee ti fardu mooma mayen fa daaru abdul xaadir ci darajaay sëriñ ba abdul xaadir dellu ma may musabbi atul asri للأمم مقوس وحد العصر سهادة رضا بدون سوء ما مكور فدار الملك ما جعل سي أحمد أو بلا بايم بفخون شكر من بلا ما جعل سي محمد الحبيب بايم بمو أبل جري أمجيب ويا خليل الله ويتالام la gétti woon góor ñu defuk ndanjaama wallaay taaru ngooñ war na tuuru ma jooyo jooy ba sama gët yi muuru taaru gi lax bi wow na ceri la ginal na cer dem na billaahi wallaahi tegal sallaahi duutuma ree ba ci ku naama xalilullahi ibrahima war ngeen yew jaruna garab gu rëy ga waa daaru nee jirim na jwaa nga nit ñay jaaru imaanu diinu na aqul imaani wasaa'ibul wa lisaani cernoy kenul diine dirug lislaam moo jëkk moo fi xam te nun la yar mbaarum sëriñ ba naay na lee jël yóbbu gal ne daanu aay na maam Cerno dem na yóbbu far sëriñ daam sëriñ mamar ab sañu ngiy nuyoog daam kenn dootul xam la alxuraan ci Mbàkke ku mel ni Seex Abdu Maram waa kokki way man a way man express ba teer na te taxuma ak te teel na jileeg saxaar te masin ba wéy na maam ceerno mécanicien ba géy na xawma saxaar gu dugal bagaas yi bawun boo si ñooy borom bagaar yi fake ba dem na toppi manduwaar ga maam ceerno dem na fekki bamba com ga ku ma ne feey ne feey subbuun looco yow looci doon ceew te fes gay xoocu ku mën a fey na fey suba un loo ca yow loo ci doon ca tefes ngay xoocu way man way fu ma ne woon ba tarde ca Mustapha bu sa paas di perdi man nga xalifatu di xayrul fardi yaay doomi ahmadul mbakki yu am di bulu ko nag ababakar sadiqo ginnaaw rasulullahi kon yu bulu ko xalifa am di mustawa konte tey nu gën faa jooy e xadimul mustafa ma jooy la am ni mustafa baayam ba ko jàngaloon te def ko mi baayam ba mi jëleeti baay bu mel ni Cerno mu di ko xoole bamba ci biir xarnu bu mi jëleeti kuy nu roog maam Cerno mu doon premier rijaali xarnu moo jëkka daw kutuba mujj ak moom ba gañaa ya faxa bun laag raw na gañaa ya fa tegi ba ñibbi këram njool ma kawan ko buur ba allah laa jeexal kër mam balla seex mustaba amul ku dul seex balla seex bamba dem ca wam sasin fa njurbel sorog la addunay nu roo ku kurmbal seex anta dem ca bopp ama sasasin yóbbu sëriñ Afia murid yey bis bis sëriñ Masamba dem ci atum unay tasin yu may Tuuba di ko jooy di bis bis na seex keroog rakam seex Absa dem nan ca amana sëriñ tey cam murid yëpp nag yaakaar ceerno la ndax mu toog ba ma tal bi xarnu ndekete woo day dem ci atum ba sa sasin naa su doonam ñangoor ma ngay da sa sasi watil di bëgga woon ak mboor ma ku dox doxin wa daa yeesal ngir ma ngolaal ma kër ga fekki ko dooma di baay watit wa toppi ko marsiya di xamal watit wa njamme ngi diiti sulli mbootu xeet wa na ku xamul saayir te na toppi membaar xayaan balaa neex nga dégg séeréer sëriñ ma sàmba nee na inspecteur la kuréer a cer na tey ma consigeer maam cer na wàcc na defar na diini ñibbi na ajjana ca óoril diinu maam cer na wàcc na ba sëriñ daam sëriñ ma marata ñu ngiy daam jigéenul óori ay yaa koy teeru lalam ya ñun barsàq ñoo cay feeru ma ngay bonaana ci lalam di fuuru jot na ca bisu feer ba bisu bamba takkal na ko médaay yi baatin yu dul tekkeeku la daa borom kun yëngal na firdawsi la maaja tuuba taxaw fa jannaatu nay ni booba jannaatu addin am na fay ridwaani nuyoo na fa ak bàccak borom gaawaani maam na nax nanu ba dem jinaani ma deebu ko seeti la daan jiraani fukki fan ak juróom la di buuru ñu naa bayit bayit mu daa di muuru ñetti fan ak ñeent weeru soobaan di alxames la ne ne am na juróom ñetti fukk ak yu manqué yenenti weer laaj naa di mbakki ku bëgg a dégg fa mu dox ci saayir na ma jox taw na fu kon saagar ku bëgg xam na cerno waati daa def déglu ma ndanga roy ko moo di aarif ba muy xale la dalli ànd ak bamba yërëy jikkoom yaak jéegoom yaak tànkam ya bamba ko jàngal moo ko def kaan foore jàngal na ay foore tumas la doore ray ray ba saayir sa dikkan baatin ba fu mu yemee ku mu téeñu fab yanam ba xolam bu ak tebeem ga ak dëddoom ga ñambaar ga yaaram ga ak sàmmoom ga ak maanoom ga ak doyloom ga ak wàkkirlu ga ak wóolum ga moo bañub tubaab baa tef cedd mbaab yéefar soppul ku daa paranoom te mbaa kuy téefar ngëmam gu mat liimaan jaa dëggal gu mat ga waraloon tawhiid ja tariixatoom ja waraloon lislaam ja haqiiqatoom ja waraloon lisaan ja tarbiya ga waral barik addis ja tarxiya ga waral murid addis ja tasafoom ja tax mu saf muriid ja haqiiqatoom ja tax mu saf muriid ja mas la sopp ak dagam ya seytaane bànneex ak bakkan bokkam day seng jàkka ja saxal fa mbooloo saxal fa junni juróom moo yoolu masla manke waxtu masla tiim fa daaru masul di maamuñ masla fay fa daaru gennook fajar la masa tiim fa daaru keroog moxtaar jóob moo ko nax mu waaru noon na ma yaari takkusaan la masa tiim te ma amee ndox yi na julli ma tiim keroog la ñuy sëriñ ma sàmba ànd sëriñ daam santu si di bamba ñaareel ba mooy at ma muy sañci kodo ñu tuuba at ma mel ni kado te daa saxoo dinaa fila ci weeru koor ji ilimaan mooy waane ji ilimaan de su ko ma seesu ko gàgganti du ma waadu ku weddi laajal naari waa day maami seen gag ba jàlloon jukku ñëw suudaani bambaane maam cerno na leen gàgganti man bamba bis balaay lijjanti bambaane maam cerno na leen gàgganti man bamba bis balaay lijjanti keroog la maam cerno lijjanti naar ya tasaare mëx naa ya talaalul mool ya tey mux ji bamba ak maam cer më ne su ko xibaar ko yàlla ma seefu ko tabaal du juum du fàtte mas la jama ngir bamba moo koy atte bamba ne woon bu cer no daan li xaamlu fa daarul manaan maa nga toog di laablu man bamba it su may li xaam kabbar cerno ma daan maamu ñi ñaari mbër te booba seex bamba nga wan ko naa kiri te daaw ko xamal ma naa ak jaxasoo du ko tere ibaada kenn mënu ko def loo daambaada denir lu gaag nga ak jiibam nga lu tax mu fàtte seen saaweetam nga noppem nga ba mel ni daf laa fàtte te teewu ko dañ ko fa cernoo sat masla rat masla tiit du jaaxle ma dee kalaame bor baax le ma seefu koo jimib di giñ loo masla waatoo mbaa mu dox di jañ ñime ñime ñime ba mel ni aggar dafa ragal yàlla ba mel ni baqaar te wexe wexat ba mel ni xatar safar le wa doom ba mel ni am xar tabe tabe tabe ba mel ni mar ta aya aya ay ba mel ni par par wan pataaki daarul muhti amal na leen da iwet dun ko batte jirim ya ak miskin ya ñuy baayo nampal na leen ci saafaram la raayo dagam yore yaa tax mu sab fakir ndimbal la moo tax mu sab apiir yërmande ja tax mu saf saqiir ya teraanga ja tax mu saf kabiir ya ñamam yu neex ya tax mu saf siboor mbañum woto ma tax mu saf saboor goreel na jaam ña goreloo na gor ya ngorom gurey ga wala ngaan ka kër ya ikam yu ya wala ngaan ca ya géeju ikam ga duusuto yal ya lu sas murit di war di laaj daaya lu ñuñ di ñoddi mooy borom inaaya te du laajte loo ko jox mu sant soo ko joxul su la gisee na pat soo ko joxee mën na la abdulilahi soo ko joxul du na abdulilahi lu woo murit du yeewu am murit te loo ko jébbal xam na mooy amit lu tudd nit fu mu newul lu bodde du jëw du jëw loo ñu xamoon du gëdde ku mu denk la duutu ko laaj abada lu mu denc duutu ko laal sarmada ku may mu woon la fa daarul mu mas la farfarloot du wàlli parti xamme wulan baa dolla waag waaguur wa ca la mu ku bañ mu woon la yoon ku masa toog ñaari ngémmiñ ya daroon ak ñaari ndaama ca poose war ko buy juli in fetel ya dal takk muy sànni jàkk wa di dox baabu te tew ko la bara waa Mbàkke waaye donoo gën a door fa lim joxe ci fetel ma ne su lim lim ma ci fasin ma ne su ko lim ma ci sax gi nag ak mbalaan may na ma am sax fa ban la bajaan mësula war ci ab daal kuy laaji lim faji aajo tim xadaaji lu war def ko njukkalam day gaaru baaki mbaam la ndaawatal fa daaru talaabiir aki bey ay naaga baa dunay baa sàmm saa koy taaga yónnee na waa jumaa ja junnim ngurdu gileem gaa ko sewan di farndu fukki junneeg ñaar la jox seex yanta ba mu ko yotee maqaama mu diwi jan seex dello aatir ko lamat paneem ba ñetti juneem lu yóbbu moo gorom ba seex dello aatir ko lalu pemeem ba ñetti juneem lu yóbbu moo gorom ba ku weddi lii laajal mataar ma suugi moo yóbboon xaalis ba moo ko sooke déglul ma wax tey fa sunu maam ceernu jàmbar juri ja jaara ba rawn yàlla ko jagleel te atal mu bàmba ñu bokk seeni ngir te xadim fab yan ba yow ma alastu la ko bàmba tànnoon muriya bañ laax ba lee la génnoon moom lañ diyal ndab la mu bokk bàmba ceex yépp dañ caa tanga ba niit ba mu jëkk sukk mu jojog ci baatin kun fa yàkkoo noo ko dagal moo leen gën nga ne li saari bàmba ci wàllu maam moo tax moo tal yan ba ahmadu soxna bu sa mu maam maaram moo sampuraayaw maami mbakke ba këram maam maaram bindal na bis ab dénk ko ay rakam yu ànd ak tagg nee na su dee gaar dawaale ba sér ko teeku lu ñu bil waali ñaari sëtam yu baax yi doy nañ seere Seex Bamba ak maam Cerno lil Kabiir yéen yaari maam yaa bokk baay fa mbàkke ñu dellu bokk benn baay am mbarke mama saalooy ndey soxna jaara bu dukkal moom kenn du sampi daara mama saalooy ndey soxna jaara bu dukkal moom kenn du sampi daara mama sa mbàkke ndey soxna faat ndey ndey maam cernu mi xar adaat yi yaari maam ñoo bokk génn góor ga ahmadu soxna busa woy na giir ga ci sunu maam ahmadu soxna busa la seeni géej ji bamba fi di duus déglul ma wax la laf ci mbokku baatin loo xam ne tuuti laa ca xam ci baatin yaa ma xam fa ji na ci dunya ya bamba daw jëkkante ko baayam ba keroog la maamoon antana Bamba sa ñaan nga nungu na kilee yor yan xam sooy doonay rasulullahi mooy sam su Bamba doon Muusa amu dem Haaroona seeni mbir ak yooyele mbir noona nee na alluwa jam doon jàng la ba taxaw ci kaw di rëy dana ko tooy may waasiru tooy xutbu may xawsu dama lay sooru fekkoon bambay jàng saaru xasas ba ca fa arsil umma i la ko jire te bamba daal di dem ba nekk maam faat jàngal ko ba sabi umu jiyaat ya juróom ñaari cër bu nekk amu saar mu julli fay rakka saxal ko fataar roog la bamba sangi mbooleem cër ya mas la doxi lu fa bar ya foofee la bamba toog bindal ko teere xaar perma bool xool ku ndey amuy teere foofee la bamba toog bindal ko teere xaar perma bool xool bool xool teere bisub kaab la ma bata baas ñu dégg sox yey takk kenn xamul ko waxtu wa muy takku la sox yey takku loola waral njàmbar ga mën ko bëgg te bamba na ji day man faalo dara li muy alfaanu mag rijaalu keroog la yàlla def ci sunu maam ceerno sopp fetal jiyaar ba moom ab xaru te saan la sunu maam moor ant la xasu gonte poroxaan bi jant ñu daal di doon sa kala te génn réew sa daal koy yanu boole meew ma ñu demee jaa bakkun la ca soo see berndeel ko falan ko ngente ne leen suñu nopp lii muy wax waruma waaye rasuulu wax nan bismillahi rahmaani ko jabal korom na ko su ngeen bindee yi fay xarnu guddi gu ñëw muy jàng tey wër néeg ba ba muy ayoog biisu géej ga wal seen néeg ba géej bu walee ci néeg ba ca ndox ya ba muy ayoog bis kenn du xam ndox ya ci toxal maam Cerno ak Seex Bamba seeni mbir ndono ba fa bi tànkam ba Bamba ne fu ma taxaw mu ne fa jaar jaxantu mboor maw yoon ne su doon ab dëkk Cerno yoon jëm si ci man ku suubu tagoo wa baay baa ku ku de cerno ibrahima mooy sëriñam bu ndaw awa tafiima te moomaat la njool ma daal di ñibbi kajoor san ci pataar moomat waay keroog ba muy dem dafa listixaarlu ñu ne ko ñibbil ren kajoor tam mbaarlu keroog la pencum poroxaan ma daanu ma faati jóob woppu sëriñ bakaaru ca mooma alla xaalima mar anta ñibbi kajoor la joor duna manant mboolem kajoor jiital ko def ko xaadi mu raw ka teew ak kañu kay maadi mu boole kook seex anta niitin waani jox leen sëriñ afisul xuraani mu am faam at baay ba dal koy laaji jébbal ko bamba si xadaaji bamba ko jàngal xam-xam jàng ak liggéey la boole wan mbaam ndam bamba yor yar ko ci waxtu si xari mas la moom li waxtu ci bari mas la juuyoom ndigalal bu seex bamba mas la fanaan fa dun fa darba buy dem mu yor tatala kaag daramba ak seera baag daa ajadi saf laramba mas la juum ba takbir ni maam faati ngir bëgg a lekk mbaamu naan laayaat masula fanaan al du genn daaraja day rafle tey yelwaani ba xëy am daraja te yooya at la bamba ak maam Cerno ak Seex Masamba Jóob di dox ba wër war nan Kajoor ak njaambur ak Bawal ngir bëgg am ñetti dërëm bay jaambur war nan Kajoor ak Bawal waa njaambur ngir bëgg am ñetti dërëm bay jaambur ngir booba naar bu ñu naan sariiful asan moo ko bindal ab téere bor la yenu téere bu tudd nee fat la ak rawdu faay xil li maalikil jalaal na noog ma samba jóob ba dem saam amuñu lul fukki xasa boole mbaam nee ñu ma bàyyi seex mu di jigal moo ko joxan sëriñ ba loola ko jagal mbaam ma sëriñ ma samba sambak la ko sëriñ tuuba saral mu teg ba demee ba tollu néegi wajja fa lañ fanaan sëriñ ba xatt wajja sëriñ wajja nga yor mbalaan nun tam di leen bijanti di nu roog waa xandam te bamba na ndax waxtu yi tàggoog ñoom jox leen mbalaan ma laaj ko day waral juum sëriñ ba tàggoo joxuleen balaan ma yaakaar ja tas cer ma sant waayam te bamba ne su ko balaan ma seex yu rafaati la yemal maqaam te bamba ne su ko joxoon balaan ma seex yu rafaati la yemal maqaama mbaa mu yem ak seex yu rafaal maqaama di ram ay kuréel bisub xiyaama mbaa mu ramu mbaa mu yemoon Seex Ibra Faal maqaama di ramu ay kuréel di jëf qiyaama boobee ba tey maam Cerno Ibra Faal mas la tàggoo Bamba bi mu daat te lu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul ko Bamba te du ko laaj te lu ko laaj mu jox te lu mu soxla Cerno Faal ibat ko jiwaay ma ne suufam maqaamaam ak yi nga neelam lu dul bisil xiyaama waay ma nee fulo xalam maqaamaam ak yi nga neelam bisil xiyaama déglul ma wax la ba bamba ak ceerno del see pataani ne di ree di den maam ceerno naa ca bamba nu ngi reetaan naa dun fay mbor bi dinaa ko yalwaan ca bamba naa ko ku bëgg a cor fii nga nay ga del ci yóbbuwaale si kiis te bamba naa ko ku bëgg a cortu nu nga naa ja del yóbbu ale seg siis bisub karoog la sunu maam soxna coro jébbal sëriñ tuuba mbalaam yu defi koro maam faati joob doon na keroog maam ceerno ñetti daram see bamba fay ba doy na karoog la bamba ma sa dem ca ga waa kër ga gépp naa ko bamba gor nga malaan ma moo waral malaan yu bari dërëm ya moo waral dërëm yu gore yi wëndeelu baa tax yi wëndeelu ba roppi laa rëgg yi jëmbeelu te tànki ni bamba yaag maam cerno la watay raame di daw di korno gannaaw banaar ba del see soo daani mu jox ko ñetti junni ngir bi daani maam cerno faati jox ñetti téeméer sëriñ Masamba Jóob toftal ko téeméer karaag la gànnaar xam na njëkk a fecc taxula mu jëggeew ku gëm du kuy rëbb day xiif ak mar di raam su fetele tànn du di mu taamu Bamba fi dara ba cer na fees ko dofte ko togg ko ñëw reer ko mosandi leen te xam ne lii aw mban la mbana galaala gul ko junni ñay la ma wax at ma Mbàkke Anta faatoo mooy magi Seex Anta borom ayaat keroog la Bamba doon na Mbàkke Anta fi saa'irin wa baatinin di jant daana ko wax naa waa ji ñaari jant duñ mën a bokk asamaan du lant man Mbàkke Anta du ma so na Bamba toog ba so mooy sama Seex man Mbàkke Anta du ma so na bamba toog ba soone mooy sama seex te yooya fa la daldi woppu faatu moo amee woon soxna jamoo ko yaatu njaañ la ko baay ba rab bisub àllarba bisub kalaak la ramb mbooleem mbar ba sem mooma at la xaalima mar ant yónni sëriñ baa ceer na ciw ngant ñu jaay ab kaamil yem du nja jaar maam Cerno yalwaani xamul fu muy jaar ngir lamb yey gar kabare jaaxaan góor ñaak jigéen ña jaxasoo di jaaxaan Seex Bamba yéen bu fa garab ga di jàng te mas la déglu ndënd mas la jàng jigéen ju ñuy wax jee moo fa romb nuy sëriñ ba daal di xam la mu lamboo moo leen fa toogal añ sarax leen ab lam booleeg doy maam Cerno yor ko moo gëm mooy ndey jeeyaatin ma faatoon dando ñu rab ko amdullahi amul dando ca bamba nee na Cerno yaa koy ram ca bamba noon na Cerno yaa koy ram yow mal xiyaamati moom ndey jox Cerno sam jaay nan jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Seex Bamba kenn yëgul ko jaay nan jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Seex Bamba kenn yëgul ko ci yàlla laa ilaha illallah muhammadun arsalahu illahu salla alayhi lahu bisalaam waali wa sahbi lahman salla alayhi lahu bisalaam waali wa saabi lahlaani amaana kuy sewal ku rëy fa yàlla amaana kuy rëyal ku sew fa yàlla ba ñu ñëwee te amuñu idaaya di ñaari mbëri nëbbu seen wilaaya maam faati góor ko sarax saayi nopp luñ salnoo mu tudd nga tudd ñu baala koog la mi jeeg nag balaan maam Thierno Jokko baay ba fi riwaaya ñu boole ko la muy jéeg mi ak balaana maam Thierno Jokko baay ba fi riwaaya ñu daal di jox soxna sa sii bamba nee leen suñuy nopp dañuy yeneen ba te moomaat la xaalim ma maranta su ko pataar jow makke mel ni jant te moomaat mu daal di bawal diwal waliin lil hayaat aamasa sa silla faatu yi ji yàlla ñu rob ko deqale kilee xam yilla wa radiyallaahu anil xadiim maha abii ma wax la yow keroog miraas waa mbàkke ak waa kokki teew miraas ma bamba na leen cernu mooy sama wàll bu amee mu doy nu man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy na ma manit doy naa ko man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy na ma manit doy naa ko guyennu xeetu ko ki baawaw Mbàkke taxaw fi naa sa mbaaki Demba Mbàkke keroog la yeesal njëbbal ga te di li boole gëwén ndaw ga keroog la jaay bokk nga ak xam-xam ba jënde ko muy saalix walit am-am ba la jaay bokk nga ak xam-xam ba jënde ko muri saalix walit am-am ba lañ doon ne sunu maam Moor Anta ñu yokk ko Seex Bamba mi raw ab jant kamil ba maam Moor doon ne woon baayam ñu jox ko Bamba moo ki doomi baayam ba mën na leen na ngeen ko jox borom saam ngir kaamil ba mag moom na leenu dem saam maam Abdou Khadir Baye Mbakke soxna moo ko bindaloon maam Balla Aysa soxna maam Abdou Khadir Baye Mbakke soxna moo ko bindaloon maam Balla Aysa soxna yeddoo ko rey moo tax ba sunu maam Balla gàddaay Mbakke sañ ci ngay wala yaa ko rey moom it fab kaamil ba jébbal ko ma mooranta mooy kaamil ba bis bam faatoo lañ ko jox borom saam bis bam faatoo lañ ko yóot yóot daam ñu jox ko borom tuuba fa taaxi njurbel bamba na leen yóot ko ci am nooy naa ko bis maqaama ibrahima muy dolli ay maqaama ibrahima gis naa ko bis maqaama ibrahima muy dolli ay maqaama ibrahima mu boole ko korong bu bum barkeelu nekk ku ñàkk sol ko daal di kiilu maam cerno ne suma masaa sol mbubu damay nungo nungu ba summi mbubu ma xam naa ne ku denc mbubu ma fase koog bank yaa leytani ma sol ko ndax ma sant an ma bamba an leer cerno ñu seeti aas kamara ndar di ko na jarno sant booba moo sëriñ daam bañ demee kajoor la benn sëriñ daam keroog la cerno yónni junni ngur boole yéen rey see bamba fii dugub keroog la cerno yenu junni ngur boole yéen rey see bamba fii dugub xam na ne jëmmi nit ji koy malaaka mooy Cerno Faati wutana musaaka xam naa ne jëmmi nit ji koy malaaka mooy Cerno Faati wutana musaaka ba ñu ndar ba siyaare maam aas teena bamba ndar di laaj depaas na fa ndar lil xaadir jilaani te lum fa sex Cerno ko yalwaani Seex Bamba ñaa laaj ko fa wirdul xaadir ngir bëgg a jokk ci Abdul Xaadir as naa ko toogal muñ bul ma tàggu diggante Muusa ak ku dor ngay sakku as ko toogal muñ bul ma tàggu diggante Muusa ak ku dor ngay sakku sa mbira ngeen man démb la faggu moor sàmma tukulóor balaa doon sax yaa di juróom ñetteeli lawliyaa i yeera wa wirdoo fil alaahi wa saaminul xaadimu bamba ahmadu man misloo fi waxarba laysa yujadu keroog la bamba xëy na meng di waaji seeti kunti far na feng ya moomaat la toog fa ndar bay xaddi bay bëgga way ganaar bi xëy di raddi karaag la diisoo ak Cerno yoonu penku diisoo ak Cerno yoonu penku mu ne ko nan daal riñaan tey tànku keroog la Bamba naan ci barke diili naal daal di gis kuntu jiili rabbi bi jaayi mustawa wa mandari talla oo abli xuruji min dari ba ba te feeñi dem la maam aas daal taxaw ne Bamba yaroon nañ faas gis naa la bii ngay bëgga dem ba mag te yaaraw soo daan saxal su mbag sa rakk ji mooy sa ndimbal ci baatin mooy sa rawaan maam Cerno yaa din la bisub karoog la Bamba daal di fomm def yetti way jox ko wa Cerno bisub karoog la Bamba daal di fomm def yetti way na jox aas na jomm الدر والنفع من الرحمن ليس من السودان والبلاد الدر والنفع من الجبار ليس من الفجار والأبرار الدر والنفع من الواب ليس من الأهداء والأحباب إلى بيت la Bamba dénkoon maam aas mu yor ko daal dina koy yéena am taas keroog la aas jox ko fa wir du xaadir بإذن رب العالمين خالد karaag la Bamba jox junneem ba aas mu naa ko fal naa la tayaa di as naa ko fal naa la kajoor wa gànnaar ak bawal saalum jolof di sam xaar li laa taxoon ba daam demee jolof njaay ñoom dalaluñ ko ana ko ndaamali di Cerno Faati fu mën a yem di taybul aayaati soodan Suleymaan mu di tam tibriitu daf an wa jalban mu ma daq yoot jox ko fa mbalaanum Seex Abdu Xaadir man doon ne woon ci sëtu baayu taayir mu boole kook jàkk wa ak deram ba ak kurus ak maam ak gayoon si romba ba ñu demee Mbàkke Kajoor la baay daam xarloo mbalaanu kañu naan sëriñ daam Seex Bamba doglu ko tubéy ak tuuru ci Seex Abdu Xaadir moo ko ñu ngir barke nee na koroog ku sabu nekk ci alxuraan ma mu ko doon riwaaya peñu mbalaan moom la Bamba reere bisub koroog añe ko lil kabiir ba ca desoon mu jox ko maam Seex Anta ne ko nga barkeeloo ko nda yaa di jant bis booy dajeeg tubaab yi yóbbu loo ko di dem te bu mu barkeeloo di firdu fa wirdu jox maam Ceerno ne moo ko sant wan moo yow dana ko kooka may mu am saada bila saqawatin bi xarxaada man njàmme mooma ko may fa daaru alhamdulillahi ma santu waaru déglul ma wax la bis ba bamba ñibbisee mbakke kajoor ak ceerno faatu ndaama se njafal ga jàpp ceerno jiite daara ja seex ibra faal jébbalu ànd ak maharaja maam Cerno fam ne soxna Faati Samba danaa ko jox sha Allahu Sidi Bamba la mu waxoon yàlla dogal na loola ci darajaay maam Cerno na loola ci darajaay maam fa Cerno Faati mu yoroon la jox Sëriñ Madun Joob ci darajaay maam Cerno Faati mooy ajiib foofee la soxna faati samba faatoo moom doom su góor sa ajabal moo yaatu maam Cerno dolli wax fa bamba ba mu toftal ka soxna xadi samba ñaari jigéen ñi seex mataar samba radiya anuma ali koroog ba soxna loo mu ma faatoo la leen sëriñ ba bàyyi far nañ faatu koroog la cerno mel ni gayndeeg mbooyo di wax ba daam fa bu penda bundo am nañu doom ju tudd soxna faati ci darajaay maam cerno faati bul jéema lim la cerno wanul Seex Bamba te waa këram moo doon bëtam di tànkam fekkoon na ceerno ne wax Abdoulaye Jaw ñi lay sangu kër gi atal beneen jaw Ahmadu xalifa rasuulillaahi Seex Mustafaa Bakiyu Baabullaahi ca mooma Alla Bamba dem ba dem gindi dem ku gindi dox fattu ngir bëgg a leeri nga ne li Tuubaa maam Cerno Faate fa desoon di kooba tax na fa fetoo fa xasaw gu ga luy bëgga mat weet fa gisoon waa kër ga Cerno yoroon waa kër ga ak dongoom ya di jiite jàkka ja di jàngal dongoom ya loolaay lelu xalifal xatiim Cheikh Mustafaal Mbàkke Muhammad doom loolaay lelu xalifatul xatiim te Mustafa Mbàkke moo mat doom cerno ci yoon ñun kon nu ndooy ca ko yëgal Seex Bamba ko këley góor Bamba na cerno nanga ko wax borom maa ngi ci xalwatu damay liggéeyal saam Bamba na cerno nanga ko wax borom maa ngi ji xalwatu damay defar si leeg saam keroog la Cerno yónni Abdul Xaadir moo jëndi gàtt ak torog ci saaya sëriñ Mamar Jaara ko tudd xadwa fa tudde ko boppam bambana ko Mustaba bis bam tuddee ba yooma asoora la bamba ji si leeri Tuuba mu leer mu no a bisub tudam ba yooma asoora la bamba gis tuuba mu leer woon ah Cheikh bamba topp leer ga jël tuuba tuuba leeram ga jël na ba fi booba ci lee taxoon Cheikh Moustapha moom tuuba leerum mbirum juddoo ma feeñal bamba dem see la ko wax maam Cerno ñu daal di toj àll ba gor mu war nu Cheikh moo dundu mbe woolu mboolem quartier ya Seex Bamba rëdd jàkka di ca ximla Seex Bamba tudde bépp gawoon fa Tuuba sajaratul saada la tekki booba boobee la dey maam Cerno Xalfa aada ne ko filey sama mujj saada bisub koroog la Bamba wax borom saam ne ko juma dina fi am fileeg dira saam bisub koroog la Bamba wax borom saam ne ko juma dina fi am balaa saam bisub koroog la bamba wax borom saam ne ko juma bamba am fa ati at di taalif maam Cerno yor sa il sa moo di aarif ca moomaat la ko digal mu kër te amul sax ne ke kër kër boole wax Seex Bamba naa ko man dey fetel jaar rek ma dey su dey daam na ko loo yëngal soxu ziyaar la te foo taxaw maay sang war la aar la li nga jekki ba junne kab tànk ñoo yem fi yow sha allahu doo toobanku may naa la ngay dund waxtu la soob deefu la seesi doo fi taggoog la soob soo xalamee at na Sëriñ Tuuba demeet te fu mu na moo soo xalamee at na Sëriñ Tuuba te kenn xamul fu mu jëm ngir ci réew mi ngir tàgguwul kenn ku dul maam cerno te moom du feeñal boot li tax mu raw ni sëriñ bu soobe daal di bindab leetar yónne ko ci xiidee mu tiitar leetar ba dem fekku fa te bamba waa mbàkke ak waa moto bu ñëpp bamba ca bamba dox jolof wéy ba waalo ñu naa ko doomi doomi ak tawaalo ba mu demee ba romb mu jiitu maam Ibra la ko gis man bi Seex Bamba romb ko hoy gu mu julli alaaji maali la ko gis muy ba mu nuyoo alaaji waasul asri la ko ne santal bin dajee fil asri alhamdulillahi illati afrajana min sulemati li nuri ona ba ba setee la Bamba xëy wàññeeku del ci Tuuba Mbàkke gépp yee ko inna alladi amarani bil masa huwa alladi amarani bi ruya ba mu gisee Maalik wa Ibrahima lafar na teppet jaaji yoonu ba mu ñëwee na Ibrahima gis naa mbar mu tudd Ibrahima jawriñu alaaji fil islaami bun sàgganee ñu raw nu fil xiyaan bisub koroog la bamba ñaax maam cerno yowmal xiyaamati ramul bi xarnu koroog la naa ramul ma ahlul bari su ma géej ram ahlul bari ca mooma aj la jag géej ga bëgg a liggéeyal mustaba muy géej ga loolaay lulu alaaji seyfi fallu ñëw na ca ama wasatin min fadili kasu rajab la njool ma ñëw ci dunya loolaay guddig riñaan ma toj këram ya keroog la bamba ne rasulullahi ñëw na fa tuuba ngir ganam lillahi loola waral seex dem ba makka dem tay ba far ngir njool makka musaaka yaa ngi bëgga fuuf ci bamba dëppal saw cer na yor na xol koy tànki bamba tànki maam Cerno mu ne su ko tàggale suñu abiyaat way tànki bamba yaag tànki Cerno faati mu ne su ko tàggale fi labiyaati dañuy cere ku cere ku sob jaxasoo ca baawaan seeni mbir jiitu ñu de jiitu ñawan min asasin limasasin taqabala wa bi siraati kawaani su balaa loolo juddu sëriñ ma samba mbakke maam Cerno am fukk ak yaar mbakke rog ba seex bamba ñëwee fa mbakke Cerno di dox diggante yaari mbakke sëriñ ma ku jëture ak maam Cerno ñoo topp too lepp ñoo mat awnu murit bu jébbuli si moo lay taxaw tool bu ñu faraasu bam sax mu baxaw am um digaloo ki taali Serigne Touba moom la ñuy jëkk béy fa Mbakke booba buñ digaloo taali Serigne Touba moom la ñuy jëkk béy fa Mbakke booba ko jawriñu Serigne lu ba gor ko doodi fa doodi ñu war mu farlu Serigne bu soobe ñëw mu jox garba ñu bay ca gent mu fay ko ba te moomaat la bamba wax maam Cerno diggante soxna Mbàkke ak guam ñu daal fab soxna sa jox sëriñ daam fa Mbàkke bapp loolu mooy ndigum daam am na fa doom yu sàkk ay xalifa ci darajaay maam Cerno may xalifa loolaay loolu Muhammadul Lamin Seex Baara Mbàkke kooka mooy amiinu te moomaat la bamba te moomaat la bamba jaay jàng bam tàmbalee teral mu jóg di fëgg te moomaat la bamba woo ñuy jàng bañ tàmbalee bañ tàmbalee teral mu jóg di fëgg waa teral la ab yaani ba jot yaasul ma la yaani Seex bamba daanu ndeke fam na alja di baamu woy wa ba alak ma jaala Seex bamba daanu ndeke fam na alja di baamu woy wa ba alak ma gaal هل الغياث المدر المادام في ثلاثة كرد ردا keroog la Seex Bamba tasaare daaraja daldi bayin jàngale mu am daraja bisub keroog la Bamba woo maam Ceerno digal ko muy jàngale mooy juróom mu def ko muy aalimu kulli faanin shara arabi tadru bil manni teewaat la ko yóbbal fa jaxate kër moor biraama keere foo rew nukati déglul ma waxa déglul man walbati la far la waxati way wa ma am ceerno weel waa njaxate ala siihi waxti siidi ji salaamun faridun laa yubaali bi misli salaamun kama miskin wa wardamin an nadbarin على سيف إبراهيم مصباح أهلي نبات جهل أذى الأرض جميع ما كما تنتهي في البدر سلمات ليله فكم جائلا خسار فهلا مبجلا وكم من خميل فاق فلا بفضلي ألا أيها المقود كل من ويا من يدير خمر بار لسيلي أتاك قريب من بلاد بعيدة فلا يغفر لنا أنت القرب الجليل وكن لي أبا برا رئيما ونافعا فأبخاك رب الأرض حاول الجفين ولله لو كنت سالا من حدودكم إلا مماتي ما نلت بالمقصود والله بيسر يبل دنقوم بي way waag ja loo mën nañ ca terrain ba amul fa am at bamba daal koy woolu ne daa ko haajar ne moom laa woolu ca mooma at la ko yebal fa kër makala wa huwa ala rabul wara ca mooma at la ko yebal kër makala huwa ala rabul wara tawakkala la dale njaambur jàpp waa kër makala moo leen xamal laa bum desiitum satala la dala njaambur jàpp waa këram ak kala moo leen xamal desitum laabum sa amul fa amat Bamba dellu woolu ko ne ko sëri atoog aqiiqa boole ko ca mooma at la sañ ci mbakke baari dajale fay ci xaari wal ci baari maam abduloo ànd waak ba ñëw fa wisite kër ga ngir balak doom amul fa

dunyaan wa uxraan mooy texel bi xaw maam abdulo moo doon lantinoorub sar maam cerno moo di lantinoorub sir mu yenni cerno boole koog demba kebe tubaab ba naa fa deme ba cerno laa wax bamba seen leetar ba mu ne ko jibriilu ñëw na bii fa nër wax na ma seen mbir xamal ma mbóor ya laa yaa way siyam kuru moo di mbóor ya billaahi ba ولا راجي ولي وغيري غدر بلا xanaa yaba ba Bamba génne Sénégal ko yóbbu Congo mu tabbi gaal subaana man fil bahri wal bahri ma fajran jawaari wa kullan jama subhaana man li jada fi sabina fi xidmatin li saaibil madina سبحان من يوجد في النار الليل والإسرار والإسرار corog la bamb genn cerno ruuya tabbi ca géej gën ko sàmmal tool yi la bamb dénk cerno ruuy tabbi ca géej gën ko sàmmal tool yaa ngi mel ni gone guy wattu tool di yéeg di seenu kullu far am njool ñu naa ko njool mi njool mi far di agron ku dem ba laal asamaan kun kun fa yakunu far na cerno tawakal maay wattum islaam te ay kanoom yéegal te ku ne man kanu waxa di leekun xar baaxa man te def nu raw laa kenn lislaama man keefar yoral ma lislaam baatina man sayru te cerno mooy daam bisub koroo la ko sayr sayru jëbbal mbiram fa daaru mooy sayru texeeg murit yàlla turooy seere moo jëkk a jéblu koro fa baari fekkoon na bamba boole koog musaa mbuub sëriñ mamar teen ak ñeneen ña daan buub karak la sunu maam Cerno doonte baari fanaani tuba appale naan ko aari karak la sunu maam Cerno doonte baari fanaan tuba appale naan ko aari murid yi roñ yéeri yóbbu be fa kër sëriñ Mbàkke ma musoo bi mu jàll wi Mbàkke ba wan bañ gu waa Mbàkke naa ko bu nu yóbbu biire maam Cerno yal jàll sañ ci tolloog ñu naa ko ab law nga danañ la sànk ba mu ñëwee noon ya di tex texi di ree naa koy dundal njaboot ji wéy danañ dee Mbàkke la daam Ahmadu Faati faatoo mooy magi maam ceer na su dundan yaatu Bamba ne su kenn du ma xam moo tax ñu lem ko jë jëmmi biiram yàlla xam mbàkke la daam faate amal faati faatoo mooy Bamba noon na su kenn du ma xam moo tax ñu lem ko jëm ci biiram yàlla ko xam foobee la soxna faati bay bëgg a faatu Bamba moo ko jàllale Mbàkke la seex moo du yodaali baato fokka sëriñ Moor Soxna Sekk maatu Seex Mustaba Mbàkke daldi wopp Seex Baaram Mbàkke wopp bay jot ab lu mat juróom ñett nelaw fa mbas balaa ba tar mooma an mbasam keroog la Cerno masa jooy ci duniyaa daldi garante doo ga yu bon yo yàlla maag taa ndey ji ak taa doom jote ñu doomi bamba yi la ñuy jee moor mbàkkeloo ma daan di xaamal cerno mool daal di fàttu jotaale far cerno torak la cerno woolu maam ma suugi te saate mooy bay ma tar ma suugi boroomi jinna la ku mën lasraar la mu lis ko bana ko ne ko dangaa dëkke ci ngirum jinni suxul te dem fa guy ga bul fi sonn te mooma ku dem guy nguraa sanci fa ab dëkkam saxal fa góor na fay ati at si kar tey jolli mu bënn fam naanu mu daal di golli te bamba daal di abdulaayi nduur mu jóge kongo ne jarañ luur Seex Bamba daal di yónni Abdoulaye mu jóge Kongo ne jalañ ma jox ko fa ay leetar yu ànd ak sirnu tàggale ko balaa fegal ko sernu ne ko nga sanc fanu na guy tag tudde ko daaru ko fanaan dun tàggoo te sakk fam naanu te yeesal diini te xam ne maa ngi daal di ñëw fil iini boole na ko toroog yëri barkeelu ne ko begel da dee nga kiilu jox fa leetar yu baal waa kër nga ne ko na leen yebal ñu dem di daranka ku nekk moo ko ko ko yàlla booleel jarul ñu fee limal du yàlla xooleel ku ne mu nekk na ko jo ab téeméer bala nga koo mu yóbbu loo mer te ko yëgal waa kër ga jigéen ña daanu door ko ay tappar ka te mbakke ko yëgal waa kër ga jigéen ña daanu door ko ay tappar ka mun na yoral ma soxna Fatima di maam ngir la mu yoroon mu ci xam ne man daam su dee ba siiru lañ koy tulle su jigéen maam Cerno tudde xaddi ba mu del ñu amaatum xaddi ma faatoo ngir bel ku la du xaddi xeralu leen ma wax gannaaw Cheikh Bamba na Cerno def njaboot gaa dëkkam ba moo yaa gannaaw te seddu mbootu te mën a muñ te mën moo yaa ginaaw te seddu mbootaay te mën a muñ te mën a sàmm mbootaay ku weddi laajal sonn baati jël moo teewe démb teewe te am ful la soxna faati jël la moo teewe démb teewe te am ful am na ko kër gi yette at di at mu taxaw mbal am ko ci an réew mi féewale murit yaag jaam yaa moo dundam benn koy ay gouvernement ba ñu jullee korong bisub talaata talaata ñu yot gan nga ceex nu dula talaata ceex mu xambaat mën naab xaliifa ci dara jaay maam ceex may xaliifa Seex Bamba way ab dénk yónnee Ceerno ne ko nga waar bi ndéef mi yaa moom xarnu wa ansiri na te la dénkoon ji waxe piiru na Bamba Ceerno ma far la wax xasida ga ya nga xam na Bamba jox na Ceerno yëf yëf wasiyatun tukasiru ataaya li kulli man yajtanibul xataaya usika bil ilmi wa bil ahmaali ما تعدلي على الكمال نزي فؤادك عن الأدران تكن مقدما الأقران ذل لإخوانك المسيئة تنجو من البعداء والفضيئة رم التودع لكل مسلم تنجو بلا تردد من سلم إذا هتاك عدود الكتاب فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك للمؤمنين غير خير ما ناديتك اليوم بإبراهيم علم فتى ينفع تركيم أتيك بالصبر وبالإخلاص لوجه من به جال بالخلاص سلام في الجلال والإكرام ala nabi darajatil kiram ca moomaat la cerno ba paqiixa booleeg tari atuli sakiniixa mu yësalaat diine fa daarul manaan yóbbu murid ya fetoo mel ni sultaan tarbiya quartier fa toppal bamba di jàngale julli yen ba ku weddi laajal alliñan fa baari la daan ànd ak maam cerno daan jaari sëriñ mamar jaboo sëriñ moor fen la sëriñ mamar kan tegal mbay fen la sëriñ amar faal mbàkke moo ko jàngal jébbal ko jarbaat ba kafeem lay tàngal seex mustaba mbàkke ma dib xalifa cerno ko jàngal ko ka new leen new jébbal ko amilatuloo taay nopp nopp ñi koy déglu tamang ma fopp sëriñ ma samba mbàkke moo ko fa daarul manaan moo ki ragam yàggal alaaji faloo nga wan fa mbàkke jarnoo ko mottilil bi xayri sàkki dencal ko doom bi tuddu soxna ayisa tata jamaali moo di bi de naafi sëriñ ma mo raqeya moo ko jàngal jébbal ko taaba kooka lam am yombul seex coroog rakam seex balla coro jàngal na leen aslaf ñu dom doora beru sëriñ Mataar Binta sëriñ Mamar Sey moo leen xamal xamal sëriñ Musaa Sey sëriñ Madu Pend la Cerno jàngal jébbal ko doomi Cheikh Bamba yu yombul te du Cheikh Mudu Muxtaar Jóob du ko jàngal jébbal ko soxna Buso moo ko jàngal ma bañi Njaay sëriñ Madu Xari moo leen xamal sàkk jànglet ñoom jàngaloon ko taaxi daarul manaan mu ne su ko lim ko ab ti farnaan xanaa yëgoo daara ya cernu sàkkoon mi tari loo donga ya maa fa nekkoon mu taalim ak jàngalekat ba tey ña jàng ñoo raw Tuuba mu taalim ak jàngalekat ya ba tey ñu jàng ñoo raw Tuuba ma Mariama Ibrahima ñoo daa bindal maam Cerno Ibrahima Seex Moodu ñaan ak Seyid ñaan Abdou Karim Lo yooya gaaya waane Sëriñ Mamar Dem ak Sëriñ Mamar Ka ak Soose Njaay xam ne Sëriñ Musaa Ka Seex Moodu Muxtaar Jóob Sëriñ Mamar Ñaŋ Seex Ture jàngale na daaru farlang ak Mustafa mu dugay mam faati Amadu Mbakke moom jégal xariyaate jàngalekat bi mat na waa kaamil ba ma neesu leen lim jaral kaamil ba ma lim la Ceerno Faati seekal ndelu ma lim lim du tax ma jeexal Aliyu Juuf la mbaay ma paate si a Bamba ne maam Ceerno am na ful sëriñ ma taar gay Ceerno gay seer ngay ma tamba gay ma suñu seen ca ngay ngay ma xarit ci te ak sëriñ mbay ci ma jabu ci te ak ma soxna ci sëriñ ma yaasin jóob ma mar cor sëriñ ma taar tamba ñuul jóor sëriñ ma mar car ma ay seex balla ji ci abdu mbakke camta saa njuga sal seex ma dikke sal seex paate sal yooya góor a Cheikh Moustapha kan ak Serigne Atal kan Serigne Mamar kan Cerno bokkul ak kan Serigne Jalaay ak Serigne Moussa ja Cheikh Mudu ja du Cernoy waaja Cheikh Góora Njaay taftal ja doom Njaay Serigne Ma Njaay Ibrahim Laay Njaay Cheikh Abdourahman Njaay Ababakar Njaay Cheikh Mudu Njaay bongoy ku Bamba Njaay sëriñ amar seen ak sëriñ mamar seen seex ablaay seen cerno fatilaay seen sëriñ masaaxo seex góor a baaxu seex fatim dimbala and wa ak njaaxu sëriñ faal sëriñ ma jalle faal mool faal gaam xam na sëriñ ma silla faal seex moodu ñaŋ xabaan sëriñ maari ñas seex madu joob ali ibrahim laay moor datali góor a bajaan maali nguur seexi rajum xam na sene ahmadu ndiir seexal na ibrahima jubbum xabbaan sëriñ mataar wañaan sëriñ biyaa daan seexal na ibrahima jubbam xabbaan sëriñ mataar wañaan sëriñ biyaa daan seex baabu gom sëriñ ma morgol njoorel leneen sëriñ ma may sorana duural sëriñ ma dundaara gay sëriñ ma buri gay seex buubu mbay maam seex na faati laay way seex abdulaay jang xam na ceerno seex ali daw barawnu seex ali jeey sëriñ mataar daraame moodu daraame doom jabil kiraami seex baabakar saw banda saw mamar saw abibu saw ku mooy ci cerno doo sew seex moodu jooja silla sëriñ juuf seex moodu ay sa silla duutu leen soow sëriñ mamar ba ak sëriñ mamar caam maam cerno faate leen defar gannaaw daam cheikh ala sambe gi ababakar gi daawude gi maam cerno daawu leen jay maam cerno am na yaari moodu jongu ñoo doon musa jongu ak ibrahima jongu sëriñ mataar ndongo ma dëkkal ndongo cheikh ibra faate tax mu am ay dongo daawude gi cheikh la limaaleel xaar gay taalibi gay maam Cerno Faate Jaraway sëriñ Mamar Jaañ ak sëriñ Usmaan Jaañ maam Cerno Faate xal na ko ka waa Jaañ seexal na Ibrahima Mbaw Seex Moor Caam wa gumba caam dootul ci boor nuy jaam xanaa xamoo sëriñ Mamar Njaay àndal Cerno ko seexal ma nga fee di gàmbal Seex Lamin Seen di sëriñ Usmaan Seen Cheikh Njàmme seen ku seenu Cerno Laay seen lim na juróom ñetti fukk ak juróom yaar ci eexi maam Cerno ci lee doy waar looy laaj li mu sete lay am daa naane yomal xiyaam seexani ñoo tey ma dellu wax leen mbiri daaru manaan ngeen xam nag Cerno fonku daarul manaan bisub dibeel la sañ ci daarul manaan te amatay sasin murit bu manaan saxal fa jàng alxuraan ak sikar ak kasidatu mu toog di fagar ban na fa teenu madroon muy baawaan daaru alim angutoo be saawaan boobe la Seex Siidi ya fa daaru juddoo fa guy nguraa ba am na daaru yor yor ba ceex la teen ba bëng na ca takkusaan gaskër ya daal di génn la bay fa pettoo yetti dagg jox ko Sëriñ Tuubaa mu tool way jàkka daggay sëriñ balla abibu gajaga bamba jox maam te def ko asaka li juróom ñaar fukki sàq tegal juróom yett mooma tar ragal na li mu atam ja noy xar baax wolof lu ngeen añaan añaan ne boma baax seex bamba fab daggaay sëriñ musaa ja jox njur bale tuuba na cer noy waaja ku weddi lii laajal sëriñ musaa ja moo ma ko wax fa daaru moo di waajal maam Cerno dellu jox daggaay Ibra Njaay ak Abdu Mbàkke yaari jëwriñ la fa Bamba dellu ko daggaay Abdu jëj Ibra mu jox ko sëriñ Daam Abdu waa kër sëriñ Tuuba te yooye wax ku kenn du ba moo amee waa kër sëriñ bu ba te moo ma kenn du ba li moom juróom ñett fukk la woon ciy sax jigéen ñi daam di wal di bojj yi ca mooma at pël ya ba tool ba jam nañ ca dongoom ya bisub allah nga ba ku weddi lii laajal habibu gajaga moo magan ca jëw yi ñe sangu waa nga jaga bulu ko na kar baaxi mbàkke mbàkke moo ko saral ne kon badar ja dekki jam nañ ca pëli yëpp ak lu topp ñële xaañ ñële di daw di topp ñaari murit léppal rey fa tool ba xarab badar ba sàkku nañ yool ba Aliou Gueye taadir fa wa maata xaru na faatu ba talaata fekkir na maliki daal di faatu seen taaxi àjjana yal ñoo ko yaatu dem nañu mamar soxna tëf atan Gueye dam njaxat sàmm murit yi yanaan cey am satu njaay ñu fàttu ngat mu daanu ñu ngaan ko ibrahima mu farkaanu ñu jam ko ab xeet daldi jam na mar taw yuux yana wiip walla ga mel ni ab taw jam nañu muudu jong gaaya tongo walla ga ñëw daaroo ki mbakke déggoo mën nu mbe lañu la ñu xaañ ñu xari ñu jam ko sox ya takk pëlin ya daari xari pëlin jigéen yaa ndaw ñu naan ay yéegam mag ña di làkk naa muri yi léegam walaay muri e bu ñu yoroon balak doom kone gu nekk fay tibbal makub doom korok sëriñ mbàkke bu soog sëriñ daam ñoo tee badal ja dekki bi is nimaam daam waroon nañoo furli fa daarul muxti kon tey balak doom ak la weer atti jubéeru ak amaat fa nii ñoo soo ko xeex ba fuñ taxaw di mattu maam cer na ba na ngir jubéeru kor la ca naari duuta tagoog dayru maam cerno bañ ne pëli ya ngir bi ca naari duuta tagoog layru maama ma rey maam balla ay sa mbàkke muriti cerno faati mbàkke ca moomaat lañ kalaame cerno te jawri ya muy la gouverneur bisub koroog lañ ko yebal si moo far ba jaag waare mu di laaxaan mbuwalu maam Cerno mu ñëw fa Mbàkke ak arda amidum kayel muy nanki fël ya ànd ak adda naan mbi maami wala ya ànd ak Cerno naan imaami mbaxaan di leen woo ko tribunal fa Jurbel ñi wuy si Cerno ñëw di leen yemu ba ñu mu naa gumaanum njaageen moo leen di àtte ndax mu jaajaxe leen ba mu demee yàlla seral solom saa si darajaay Seex Bamba may te moomaat la gerte daarul manaan ngir pël yu bon ya daal di feeti xabbaan te moomaat la teeti allub gaawaan war ko mu xat mu riya saawaan ba mu ñëwee la woolu seex fa càqami ne ko demal sanc ko ndax ñuy sàqami te moomaat la yegg kër bu kunta robb yaa ba di sab ab jant te moomaat la nuur waa si daara ma gay waari si daara waa si ñu xuur waa pir ñu daal koy faale mu daal fab li bu yóbbu waale moomaat la san daaru pakala jox ko sëriñ mataar mu yor leen foofale àll bakat mu jàll sëñ si xabbaan ahmadu jong wa paatasal ñoo daan te moomaat la del si daaru manaan te bamba daal koy woolu daaru rahmaan ni ko demal mbàkke kajoor ta sañc bawal di war kajoor di gor di lañse ca mooma at baay baytulaa iima faatu ca aama war sa tin bamba yebal ko fa mu daal di jaale abon si fi seen rijaali bu mu waree dellu daaru raxmaan fekkoon na seex bamba worloo deymaan korog ba carno yendu see daaru korog ba carno yendu see fa daaru seex bamba déglu koor ga ñépp waaru keroog ba cerno yendu see daaru te bamba yenn doglu kor gi ñëpp waaru ñu naa bayit bayit mu far begal ko ba naa yendu daaru jéggal nan ko keroog la taalif ansi labiyaati ñi di ko ngir tenk forn saati keroog la taalif ansi labiyaati ñu di ko ngir fonk cerno faati wa tarkunal kasibu ya ixwaani afdal min tilawati alqurani summa nasiatu liali lbari haril min aljahdi fi lmutbari kada kasiru ma fi afdalu lana min alqiyami fi layali samana fadum ala sifi ma nasi fasiru ibkatun xadan fadiya yila bam yila bayit la bamba dénkoon carno fa daaru manaan ngir a kiiram masulaat tey jilee mbooti carno yoo xam na jomb ne gon i xarnu bamba ko waxtaane sëriñ ma samba ma way ko man mi wereka ama bamba ca bamba noonu seex ma samba caan sumba mbindeef doon xam bir ayam xam na cernoy ndoxol li joor ba yaay càmmañ loxo bu nekk la mi njëriñ borom ba a koy leel bu lekkul faatu càmmaña koy laa ba lobu laabul laatu am ngeen ma man bamba ma nit am naa leen te xamu leen ma waaye man xam naa leen yéen di sama saayir samay seen baati yéen yaram ma di ruux di yorukun yéen di man ku leen jamono ma jamin ngeen nacc déglul bàcce keroog la naan sëriñ ma sàmba ceer ba gën a raw na xam na ci man loo xam ne kenn xamul ko na ci man loo xam ne kenn amul ko yéem naa ko ngir li mu xam ci man te waxu ak li mu xam ci ay arab te jàngu ko yéem na ma ngir xam-xam ba mu bari bari xam na ne may bahrul uluma sori yéem naa ko ngir lu ma saa man la ko jox maa ko gënal boppam te ku mu jox lu la ñax yéem na ma ngir lu ma jox lu mu rëy rëy ma jox ko bindee fi wude te naan tey yéem naa ko ngir lu ma ko jox lu mu sew sew mu denc waaye mosuma laaj yem na ma ngir waxtu te aajowul defal yem naa ko ngir suma bégee suma bégul du tee tagg mu sax di ndigal yem naa ko ngir suma gisul man bamba du tee xam saak jublu ngir yenn ba yem na ma ngir mas la gis ma ci lun diisuwul bis ñu rabbi seere se mooy ba bamba génne kongo te bind jox borom taam ngongo na ko na may Seex Ibra soxna Cheikh Anta ak maam Cerno ñoo maam Cerno moo leen bu leen ko xutba lii xalima waaye dugul mu xolom ba ma mar ka daal di xutba te Bamba ñibbisi di xul di